mbokk internet yi ñu ngi leen di char bu baax baax di leen wax ngeen dal jàmm sur le sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaan la nga abonné nga activer cloche bi bu leen ko di fàtte nag di liker vraiment c'est très très important bu leen neexee aussi di bàyyi seen ay commentaires. xibaar dañ koy tàmbalee ak li nga ne moom mooy 16 de finale coupe du Sénégal kon doon nañ ko jeexal ci bi ci noo nekkoon jàpp leen. club bi nga moom mooy Casa Sport mooy mujjee daan Génération Foot ca teg dóor ya foofe ci stadium bu Kolda ek aussi grosse performance la jël job une équipe division régionale mooy que cinquième division ñooy daan Africa Foot ci national bi la nekk ñoom ñetti bal ci dara la leen jël job daan. CNEPS moom mooy éliminer équipe bi nga xam ne mooy US Gorée comme ni nga ko fasalee kon tableau boobee mën na sa comme ni nga ko fasalee kële bu ci mën AS Douanes aussi passé na ci loolee di huitième def naa bi tirage au sort dinañ ko amal sa jeudi 9 mai comme ni nga ko fasalee ci kayitu xibaar yi. ñu utali foofee ci tugal li gën a ci kayitu xibaar li nga xam mooy demi-finale bu Europa League kon club bi gën moy Bayer Leverkusen bi nga xamné voilà kenn du ñoom ñooy mujjee daan AS Roma ñaari bal ci dara comme ni nga waxé le foot se joue à 11 mai à la fin c'est Bayer Leverkusen qui gagne 47 matchs 40 victoires 7 matchs nuls kon kenn du ñoom kon li ñu wax moy que voilà l'olé moy la meilleure série d'invincibilité ci taarixu ci benn club. ci top 5 européen yooyu vraiment extraordinaire travail mucc ayib la Xabi Alonso di amal ginnaaw gi Marseille ba ñu njëkkee mëne kooke di Samaka moo fa jaar à la 11e minute waaye fallait compter sur Mbemba bi mooy égalisé à la 21e minute comme ni ko fasalee ci këyitu xibaar ak sax moom mooy deuxième meilleur buteur des Marseillais derrière un certain Pierre-Emerick Aubameyang compte pas mal pour un défenseur. kon le rendez-vous est donné le 9 mai prochain voilà pour connaître li ngeen mooy finaliste yi ci joŋante yi Europa League saison 2023 2024. waaye ñi ngi fës ci joŋante Marseille boobee Iliman Ndiaye bi nga xam ne voilà dañ ko dugal ci ñaareelu mi-temps bi kon moom mooy jour benn moo ëpp lu mu amal dribble kat ci match bi boobee kon rien à dire ak sax ci dernière occasion boobee ñu am voilà nag euh, bu amoon tuuti lucidité mën a def la différence mu def passe mais voilà il a frappé comme niñ ko fasalee ci kayitu xibaar yi. maa ngi fàttali ne Ismaïla Sarr moom jonte na ci li nga xam ne mooy premier mi-temps kon woon nañ ko ci li nga mooy conférence ligue bi Fiorentina mooy mujjee daan club Brugge ñetti bal ci ñaar Olympiakos fekki Aston Villa daan ko ñeenti bal ci ñaar comme ni nga ko fasalee waaye kenn mooy Ayoub El Kabi attaquant marocain boobe moo amal triplé mooy que ñetti bi kat la amal face au club anglais. comme ni nga ko fasalee kon voilà sept match jonte yooyee am na huit bi mu amal benn passe décisive ek bi mooy trent trente bi biom de la saison voilà pour l'attaquant club grec boobee. ñu bàyyi jonte yooyee addu ci lii nga xam ne mooy mbébét bi nga xam ne Qatar am na ko ñoom kat dañoo bëgg dalal Jeux olympiques 2036 ko ñoom candidat lañ di dañ def de tout voilà nag bu ko defee lépp yemb seen candidat boobee mën seen candidature boobee mën a jaar ginnaaw bañ dalalee mondial bi nga xam ne voilà atum 2022 bi nga xam ne vraiment ça a été une réussite une réussite totale kon pays boobee ginnaaw gi ba ñu lajjee nag deux fois successive ndax bëggoon nañ dalal bu 2016 ak bu 2020 kon bii kat mooy seen sànnib tàccu. et que ñi ngi fësal ci kayitu xibaar yi li nga xam ne mooy prix fi Marc Vivien Foé voilà xam nañ trois finalistes yi kon am nañ Pierre-Emerick Aubameyang de l'Olympique de Marseille Nabil Bentaleb de Lille Achraf Hakimi le parisien et que lauréat bobé dinañ ko xam ki nga xamne moy mooy raay bobé ce 13 mai comme ni ko et que ñu hôtel fofé ci Angleterre nominé pour le titre meilleur manager du mois d'avril en prime League fësal nañ ko moy Arteta Guardiola ak goulou, et que nominé pour le prix jour du mois voilà am nañ ci juróom benni jour ci noonu ñu man ci nemmeeku ci ma ni Fernandes Guardiol Havertz Mateta de Crystal Palace Palmer ak kooke di Pickford la coéquipier de Gana Gueye li ngeen di gis nii mooy nouveau maillot bu waa Liverpool italien bi comme ni ma ko fasale woon xam ngeen ne dañ ko teg ay daan ndax moom kat dafa laale ci wàllum kat xaalis kon ci noonu ñu ngi fësal kat fédération anglaise ñoom kat fësal nañu wala boog dëggal nañu moom meen mooy Sandro Tonali wala amal na ñeenti paris sportif ci Newcastle mu jox ndam clubam boobee face à Brighton club bu ci mani Man City Brentford même ka West Ham comme ni nga ko fësalee waaye kat euh, sanction bi am tek nañ ko ko nag mën na jeex 27 août comme ni ko fësalee waaye li doy waat ci mbiri kat mooy ak italien boobee voilà pare na lu mat 40 à 50 match comme ni nga ko fësalee ci kayitu xibaar yi. Newcastle seen yéene mooy ñu dalal benn portier ci noonee kat sibiri nañ la portier de Valencia bi nga xam ne moom mooy Mamarda Civil bi nga xam ne voilà nañ ko estimé à 30 millions d'euros minimum san si moo fësal xibaar boobee. Mundo Deportivo feelu ko ne Marco Verratti wala moom kat proposé nañ ko FC Barcelone. italien boobee bu fekkee nag bëgg na doxal ci club catalan boobee faw mu def sacrifice wàññikat ay koppar mooy li nga xam ne moom lay fayeeku ki nga xam ne mooy Xavi Simons Bernardo Silva voilà ñoom ñooy milieu yi nga xam ne voilà Xavi kat na leen lool bu ñu soxandikoo ci sport ñu di leen foofee sport kat yokku ci xibaar ne kat waa Barça duñu jaay benn yoon ko di Araujo naam erreur yi bari na lool ci saison bi waaye kat dañuy am wóolute ci moom Bayern ñi ngi doon fësal ne bëggoon nañ ko ek voilà tegoon nañ koppar yu takku Barça gàntal leen aussi Barça ñi ngi fësal seeni bëgg-bëgg toujours sportu ci ay xibaaram ki nga xam ne moom mooy Kvaratskhelia eh, bi mi ngi doxal foofee ci Napoli Barça nag dinañ jublu ci ay mbiram nag ci bés yi dugg nii bu ko defee ñu xool ba xam voilà seen ay mooy di may ñu dalal kat doomu géorgien boobee kat mu ñëw doxal ci club bu Masia boobee. ñu desandi ci Espagne kenn mooy Thibaut Courtois moom kat dinañ ñëwaat euh, voilà ginnaaw gi gaañu gaañu bu yàgg bi nga ko doon tëral te samedi lay doon nag ci luy soxal Liga e-sport bi contour Cadix Relevo moo fësal xibaar boobee. ñu tëli foofee ci France kii nga xam ne mooy Lucas Hernandez moom kat dafa amee gaañu gaañ seen jonte bi ñu amal contre Dortmund ci noonee clubam bi kat voilà nag fësal na ci ay xibaar loolee ñu naan rupture des ligaments croisés kat la amee. ci noonee de saison jeex kon mom sax la ko du de bokku de ci Europe bi moy que forfait euh, la lañu ci noné Didier kon publier sans son défenseur voilà sa liste de ce 16 mai a ci Allemagne ak Europe ma rappelé date 14 juillet lañ ko 14 juillet. et que fédération autrichienne de football ñom kat confirmé nañ ci xibaar nga moom kat dafay rese seen sélectionneur autrice au delà de l'euro kon dina rombal li nga ne mooy euro kon waa benn benn bëggoon nañ ko kon moom kon moom dafay wéylee ak autrice pii bu alaba boobe ek nag ginnaaw gi ba mu leen gantele ci noonee Bayern na ñu ngi espérer xool ba kan mooy utu Thomas Tuchel kon voilà ciblé nañ kii nga xam ne mooy Hansi Flick bi nga xam ne voilà wane woon na fa liggéey bu mu caayib ginnaaw gi ba mu gàttoo Ligue des Champions bi atum 2020 waaye li tenn image am li yàq image nag mooy que ba mu demee foofee ci Allemagne dafa lajjikat moo toog ci li nga xam ne mooy premier tour bu mondial bi comme ni ko fasiree ci kayitu xibaar yi waaye Bild kat mi ngi ne voilà contact amagul ci ñaari pàcc yi waaye li leer ba leer kat voilà moom benn option la candidat la voilà nag pour ñëw utu kookee di toxal de même que désert bi du ci mën ni Zidane ak yeneen ci ay coach foofee ci États-Unis kii nga xam ne mooy Lionel Messi moom lañ tabb jour di mois d'avril comme ni nga ko fësalee moom kat am na 6 buts mu amal quatre passes décisives ci ñeent match joxal ak clubam clubam boobee et que Inter de Miami bi boobee di clubam nag ñu ngi en négociation ak kookee di Angel Di Maria bu defee mu ñëw doxal fa ut bawoo fa ca Benfica nag rejoindre kii nga xam ne mooy son coéquipier di la Pulga. ñu àddu ci kii nga xam ne mooy Mamadou Mbacké Fall bi nga xam ne jàppale mi ngi doon wonekat performance mu ceeb ak Barça athlétique bi. ek ci li nga mooy troisième division espagnole boobee moom kat voilà dafa amee gaañu gaañu kon kat doomu tëngij boobee l'international sénégalais bu ñaar fukkeel ak benn boobee voilà nag ginnaaw gi gaañu gaañu boobee ci Séville bi nag voilà opération la amal bu ko defee kat mu am séance de rééducation laata mu ñëwaat ci ay jowanteem waaye nag ñi ngi fësal li da ci saison bi kat du ko mën a bu ñu soxalu ko ci sport kookee di Mamadou Mbacké Fall jàppaleen nag machine bi mu gaañu boobee nag mën na doon dernier match am avec club catalan boobee ndaxkat club bi ngeen mooy Los Angeles foofee ci états ñoo ko abal waa Barça. comme ni nga ko defoon ca Villarreal dañ cee fixé loolee ñu naan wala nag clause wala boog option d'achat bi fixé nañ ko à 4 millions d'euros soit 2,6 milliards de francs CFA. xam ngeen ne loolee du lu ndaw pour waa Barça bi nga ñu ngi traversé situation yu yu yu kat voilà ci wàllum jafe-jafe sur le économique ba tax na kat buñ mooy buñ mooyul kat duñ lebe loolee li kuréel bi kat ba tax na dina delluwaat foofee ci Los Angeles et que recruté pour 37 millions d'euros lors du dernier mercato estival l'attaquant sénégalais bien mooy Nicolas Jackson jàpp leen mi ngi wéyale di lakk caaxi naam critique na de waaye moom kat voilà nag. comme ni nga waxee la meilleure manière de répondre ces détracteurs c'est sur le terrain ngay lakk ci ay attaquant foofee lañ koy soxla naam moom reconnaître na voilà li muy raté na lool bu ko doon dugal voilà kenn waxatul Chelsea actuellement mën nañ wax sax ci big four bi la ñuy xëccu. ki noonee voilà seen joon bi ñoon amal contre Tottenham luy soxla si retard. fanweer ak ñeenteelu bëccëg boo English Premier League moom moo dugal ñaareelu bibi sinon coup franc benn exécuté par Cole Palmer jàppale suivre bal boobee lakk caax yi voilà coup de tête kon loolee moom mooy euh, comme ni nga ko fësalee. quatorzième bium à toute compétition confondue ci 39 match yi nga xam ne doxal na ko ci saison bi avec les Blues. ikama fàttali nañ ci li ngeen mooy Premier League bi am na 11 buts et que voilà quelque journées yi nga xam ne voilà mën na ci lakkaat caaxi bu baax a baax kon mën na gën a amélioré si ay statistiques ci le meilleur championnat au monde ginnaaw gi ndam ba ba ñu am deval le club de Pape Matar Sarr ñaari bal ci dara kon ñu ngi fësal kat club bu Pochettino boobee ñëw nañ à 3 point des place qualificatives ci li nga xam mooy jonte yu Europe yi mooy que Manchester United à 3 points la ñëw ci ñoom ndax Manchester United maa ngi fësal am na 54 points ek nag Chelsea am na 51 points kon tout est possible kat. de saison. et que ñu ngi fësal Nicolas Jackson voilà ci première saison égalé na un certain Sadio Mané ba muy njëkk doxal foofee ci Southampton pour rappel moom foofee ci Salzbourg la quitté waaye nancoo bi après voilà mën li mu wane voilà kenn du moom jàppale nag kenn mooy Nicolas Jackson voilà pas mal nag pour un début ndax am 11 bi voilà nag raw un certain Didier Drogba un bi bu kon voilà luñ ko mën a waxal mooy que voilà mi ngi lakk caagi et que ki nga xam ne Livarien mi ngi dimbal voilà mu naan ka kan gën liggéey bu mu xaddi benn yoon ek voilà nag comme ni nga waxee ku liggéey ko ci noonee voilà nag moom mi ngi topp ci tànk légende ivoirien boobee kon ñu ñaanal ko ek pourquoi pas ñu qualifié kat ci jonte européen yooyu loolee dina mën a sauver seen saison comme ni ko fasiree ci kayitu xibaar yi gaa ñu yemale foofu xibaar yi jëleen jaajëfal ba beneen yoon sur sport 221 bu leen fàtte di liker vraiment c'est très très important